Siteu booy la boo xam ne bii eh, nee na bëreet yàlla may ko mbooloo mu am mënin dafa am benn mënin mënin bi mu am dénk ku ko jàngul pour nga daan ko ci du yomb parce que nit ak fooram moytu rek laa ci xam mais su too fooram nag jéem a jaar feebalam loolu am njàng la da ngay xool ne kii ma adversaire bii de fii la foore mais li mu foore ne naa fexe ba du ma fi jaar loolu xam-xam la léegi nag soo ko xañee fooram man nga am ci moom dara. waaye nag fooram ne lii mënuma cee daan loolu xel la loolu xel waaye wala boog soo su la ko defee nga jàng loolu ci génnee soo defee erreur ba forum mu ñëw nga jàng ne bu ma defee erreur bi nag ba mu def ma nii mais bu ma defee lii loolu moo ci génne loolu nag ku am xam-xam la ko mën a entraîneur bu am xam-xam moo la ko mën a jàngal kon Siteu booy la boo xam ne mu ngi bonne voie te xam nga toujours damay wax ne mbër mu ndaw suy départ day ànd ak sens boo gisee combat bi ñu fi bëri yëpp sens ci nekk boo gisee ni muy bëree rek nga xam ne kii mbër mu toll ci guddeem la day bëri wërsëg loolu yàgg naa ko wax te loolu laa ci gis mais bu ma ñëwee ci Sa Thiès Sa pour man mooy favori bi man ngaa doon favori tax te nga gañe waxoon naa ko ci Eumeu Sène ak Modou Lo nee naa la kon Eumeu mooy favori bi waaye tekkiwul ne mooy gañe kon moom it mooy favori waaye tekkiwul ne mooy gañe parce que moo ëpp doole dégg nga te ndaw la comme ñaari ndaw lañu mais Sa dafa am benn erreur bu muy def ci biir bëri maanaam li mu ciy juum dafa bari damaa seet ñetti combat yoo xam ne yi seetaan naa ko daan na mais sens la daane ci sama gis-gisu bopp nag laa wax mooy contre Boy Ngaay daan na moo mais bëri ba taq na suuf sens daane bu doon waar waaye jox nañ ko victoire mu bëriwaat fi nekko réel daan na nekko réel mais na mu daane nekko réel rek réel dafa seetluwul parce que bi mu ko lancé daw jëli ko rek dafa doon téye ci bras yokk pas bi tout def un pas avancé c'est que du bi day taxaw mu tëgg mboot ci biir bi lay toog moo tax keroog ba mu toogee mu bëri waat sar ko ñu bëri fi bëri bëri sar ko laal ko bëor ko ndomb mu rëcc ñëw wërs ko daan yooyu du mën a bëri rëcc la wërsëg day feeñ fu ne mu ngi mel ni nga yorta di dawal léeg-léeg nga xëcc nga wala nga yor engin di dawal léeg-léeg nga génn ci benn obstacle boo xam ne bi du sa mën a dawal yàlla la musal loolu nag day am ci biir bëri yàlla musal la nga génn ci benn obstacle génn ci dara ñëw toog cere bi damaa mën a bëri man ku rëq da déet déet da ngaa rëcc boo demee def naa fi la ñaar laka sant sa borom xam ne da ngaa rëcc loolu day am ñun ñu ci jaar nag bëre ba tay ñoo ko xam mbërët bàkku na dem ba këram ñëpp ñibbi mu ko sant yàlla alhamdulilah rabbil ay waa bi ma defee su ma defoon ni xaw na maa rey kii di ñàkkoon naa loolu kon kon boo ci xam nga du mën a bëri ma ñëw fekk ma ci plateau yenn plateau ma toog mais bi mu duggee li ma ci ko wax nee ma père juumati naa de ma ne ko waaw mais da ngay defaru da ngay wut saa yoo juumee boo demee kër ga dañ lay rectifier ne la nii nga def bu ko defati parce que boo defee nii li boo dajee ak daanaan doo ci génn gis nga rectification rectification yooyu bis boo xamee ne bii yàlla def na mu toog ba xoolaat boppam papaam maanaam champion la boo xam ne moo na ci làmb bu ñuy wax roi des arènes moom rek la ñu war a tudd Double Less dañuy neexlaate ñenn kenn ko neexal sa waaye naan roi des arènes roi des arènes moom rek koo ko fi def gannaaw yëkkati mi moom rek ko fi am kenn amu ko fi dégg nga kon léegi moom su demee xool doomam def erreur kon naa toog ne ko kaay dellu action bi mu wan la lii bu ko defati nangam nangam loolu bu ñu demee ba yeewu ci ah, fu ñoom Balla Gaye àgg dina fa àgg parce que li tax ma ne dina fa àgg ci sama yaakaar waroo sa mag warul nekk ci kanamam def def carrière am am tolof tolof yi mu am nga topp ci ginnaaw sàggan ba def tolof tolof yi mu def loolu laa yaakaar ne xëy na booy bi du ko def moo tax may la combat la boo xam ne mooy favori fi mu ne nii bu tegee bëri bi ci yoon ah pour ki daan ko parce que ñaar bu ñu tolloo xam-xam wala ñu ëppante xam-xam tuuti di ndaw ba pare kenn képp doole kooku bu xamee tuuti rek na xare daal waaye nag am na yoo xam ne tamit Eh, ki nga koy def nu mu tëddi sita nga xool ko muy def déplacé comme yooyu mu doon def contre Zarko man su ma doon moom Sa Thiès du ma ko ci topp waaw parce que topp yooyu jabax yooyu mooy indi juumante bi waaye su ma teelee tegu ci yoon teg bëri bi ci yoon mën naa làmboo nag dafa tëradi lu ne mën naa feeñ mën na cee feeñ man daal loolu moo ci sama gis-gis en tant qu'ancien lutteur xëy na jaar naa ci am na ñu ma ci li may wax nii xëy na am na ñu ma ko gën a xam ñu moo gën a gis waaye ku nekk ku nekk bu toogee ci plateau am nga droit wax la nga gis ak la nga xalaat xalaat bi nag yàlla mën na laa suturaal mu dëppee noonu mën naa dëppee mën naa bañ a dëppoo noonu mu dëppoo noonu tamit nga xam ne ba matati doomu aadama rek ay eh, sama gis-gis laa wax